sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq di leen bal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot ci fàttalenteendoo ak yéen eh, leen ci mbindum sëriñ bi te ñu doon ànd ak yéen ci suñu bind yi weesu ci téereem bi nga xam ne moom la tuddee jazbatu sigaari an laibin li xidmatil muxtaari ci lañ toll ak yéen di ci fàttalenteendoo ak yéen te suñu bind bi mujj ñu tolloon ba tey rek ci bunt bi muy wax a taarifu bi ak aqsaami diin bunt boobu itam bind bi ñu ci mujj ànd ak yéen ñi ngi yemoon ci euh, li nga xam ne mooy melokaan yi nga xam ne dafa jomb ci suñu borom bi subhaanahu wa taala mu melowoo ko ndax melokaan yooyu ak manki ak matadi lay tegtale ci jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala te lépp looy xam ne day tegtale ak matadi ak manki ci jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala loolee day jomb mu nekk ca jëmmam ja ba tax na limoon nañ ci melokaan yooyu euh, yu xaw a takku euh, mooy lu mel ni ak ñàkk akuk sosu lu mel ni ak jeex lu mel ni euh, nuroo ak nit ñi lu mel ni soxlawoo dara ajowoo jëm ci nit ñi lu mel ni limu lu mel ni lottu lu mel ni ak sibeel maanaam ñu koy forcé ci def dara lu mel nii euh, tëx lu mel ni ak réer lu mel ni faatu lu mel ni ngumba lu mel ni itam lu loolu lépp ay melokaan la yoo xam ne day tegtale ak naqs maanaam ak wàññi lay tegtale ci jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala ba tax na ay melokaan la yoo xam ne euh, dafa jëmb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala te melokaan yooyu bu ñu xoolee ci ginnaaw Euh, ci suñu bind yu weesu limoon nañ ay melokaan yoo xam ne moo jàkkaarloo ak yooyu yell ci jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala comme melokaan yooyu moo yell ci jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala nag melokaan yi nekk ci jëmmam day jomb te day dàqu ci jëmmam du ci mën a sax kon ci foofu ñu taxawoon foofu la ñuy continuer rek suñu bindu tey mooy wax si moom sëriñ ba tey ne wa bu ak nekk moom suñu borom bi subhaanahu wa taala aajizan di aji lot aajizan di aji lot aw asamman wala mooy aji e, tëx aw kaarihan wala mooy aji sip anaam sip dara ba pare di ko def aw jaahilan wala mooy aji réer aw aman wala muy aji e, ngumba aw mayyitan wala muy aji faatu aw abkama wala muy aji luub subhaanahu tuddunaam sel tuddunaa sellam nga moom suma borom bi subhaanahu wa taala nasaluhu danañu ko ñaan min fadlihi ci ngëneelam ga gufraana ak njéggal sëriñ wax na ba tey ne moom suñu borom bi subhaanahu wa taala day ci li nga xam ne dafa jomb ci jëmmam ji mooy ak nekkam di aji lot maanaam lot nekk kuy aji lottu oh, loolu dafa jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala bëgg def dara wala bëgg doggal dara eh, mu lottu ko mu lottu ci def loolu sëriñ bi ne na loolu dafa jomb ci jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala comme moom waxoon nañ ci bind weesu ne eh, aji am kattan la kon lottu oh, day jomb ci jëmmam ji niki noonu itam li nga xam ne mooy euh, luu wala walla tëx li nga xam ne mooy tëx itam waxoon nañ ci euh, bind weesu ne aji dégg la moom suñu borom subhanahu wa taala kon li nga xam ne mooy tëx day jomb ci jëmmam ji moom suñu borom bi subhanahu wa taala niki noonu itam waxoon nañ na aji namm la maanaam boroomu nammeel la bu nammee dara daf koy def na nga xam ne noonu la ko bëggee ndax moom moo wax ne innama amruhu isa arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun kon moom li nga xam ne moom la bëgg te di ko def ci coobareem rek la koy defee kon al murid la moom mooy namm dara di ko def kon li nga xam ne moo di euh, sik dara ba pare di ko def loolu day jomb ci jëmmam ci mooy ñu koy forcer ci mu def lu mu bëggut loolu day jomb ci jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala al alima waxoon nañ ci ginnaaw ne suñu borom subhanahu wa aji am xam-xam la kon li nga xam ne mooy melokaan bi nga xam ne moo jàkkaarloo am xam-xam te moo di aji réer loolu day jomb ci jëmmam ji moom suñu borom subhanahu wa taala ndax mooy ki nga xam ne moo xam lépp te ci xam-xamam bi ci lay tàngale ñëpp ñu am xam-xam ci xam-xamam boobu la leen tàngale te la mu leen tàngal Euh, tolut nii boo jëloon la mu leen tàngal ci am ab xam-xam tolut ni euh, boo jëloon ab kaas euh, tàng ko ci ak géej la nga xam ne moom nga fay bàyyi daanaka doo jël lu toll noonu ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala séddale mbindee fii ci xam-xam moo tax mu ne wa ma utiitum mi al ilmi illa xalila li ma leen jox ci xam-xam de lu niiw niiw la kon moom suñu borom subhanahu wa taala aji am xam-xam la kon aji réer day daal di jomb ci jëmmam ji aw ama niki noonu yi tamit euh, doon aji gumba loolu itam day jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa ndax moom moo wax ne albasir euh, euh, kon innahu samiul basir moom day dégg di gis comme day dégg di gis nag li nga xam ne mooy gumba day jomb ci jëmmam ji moom suñu borom subhanahu ndax su fekkoon ne moom suñu borom subhanahu wa taala day euh, kum gumba dafa euh, dafa dafa dafa nekk ci jëmmam ji maanaam dafa amee ak ngumba bu boobaa dana am lu mu bëgg a euh, muraaxaba lu mu bëgg a surveiller waal koo xool xam la ca jaadu bu boobaa ko man kon loolu itam mm, ak naqs maanaam ak wàññiku ak matadi moom lay firndeel te loolu itam day jomb ci jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala aw mayitan wala muy aji faat suñu borom subhanahu wa taala euh, nekk koo xam ne day faatu day jomb ci moom ndax waxoon nañ ci ginaaw ne moom suñu borom subhanahu wa taala euh, alxayul xayuum moom mooy ki nga xam ne mooy dund ba pare am kattan dund aji dund la te it aji am kattan la kon euh, li nga xam ne mooy faatu day jomb ci jëmmam ji ndax li tax faatu di jomb ci jëmmam ji mooy dunduk suñu borom bi subhaanahu wa taala dafa amul fu mu yem bu dee dunduk doomu aadama nag am na fu mu yem foo xam ne fa lañ ko takk waaye bu dee dunduk doomu aada euh, suñu borom bi subhaanahu wa taala euh, amul fu mu yem ni nga xam ne noonu la noonu la amee te amam gi amut fu mu dale noonu itam lay continuer amam googu noonu lay continuer ba du am fenn foo xam ne foofa lay yem aw ab kaman wala di koo xam ne du mën a wax kooku euh, melokaan woowu itam ba tey dafa jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala ndax euh, moom mooy nga xam ne moo waxoon ne wa kallama allahu musa taklima suñu borom bi subhanahu wa taala euh, wax na ak saydina musa alayhi salaam ay wax kon lu day jomb ci jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne subhanahu tudd naa sellam nga moom suñu borom bi subhanahu Euh, dàqal ko melokaan yooyu yëpp nga xam ne dafa jomb ci moom waaye nas nasaluhu ñëw kay ñaan min fadlihi ci ngëneelam gufraan ak njëggal kon ginnaaw bi nga xamee ne euh, suñu borom subhaanahu wa taala melokaan yooyu yëpp lu jomb ci jëmmam ji la mu nekk ci kon maa ngi koy jombale loolu lépp di ko soril euh, melokaan yooyu yëpp di ko sellal ci melokaan yooyu yëpp di ko ñaan jéggal ci ngëneelam ga moom suñu borom bi subhanahu wa taala mu ne wa annahu ak naka moom suñu borom subhanahu wa taala tudd naa lam ga laa yajibu du war alayhi ci moom shay um dara sëriñ bi radiyallahu anhu ne na suñu borom dara warut ci moom dara warut ci moom lépp loo xam ne def na ko rek ci coobareem la ko la ko defe laa wax wala laa wala xat yu jëbu te it deefut waral dara ci moom maanaam dara warul ci moom suñu borom subhanahu wa taala te te deefut waral dara ci moom maanaam ne suñu boroom dafa wara na def nangam suñu borom darra warul ci moom waaye kenn wërta waral dara ci moom moom dara warul ci moom lu muy def da koy def ci coobareem ak ñi nga xam ne noonu la ko bëggee na ko neexee ak heure ba mu ko bëggee waaye tamit kenn amul sañ-sañu di waral dara ci kaw suñu borom subhanahu wa taala ne suñu borom dafa wara na def lii wala dafa war na def le suñu borom dafa war a taw wala suñu borom dafa war a euh, sedd wala suñu borom dafa war a tàng loolu suñu borom moo koy def ci coobareem ndax waru ko doonut loo xam ne daf koo war comme doonut loo xam ne daf koo war nag dundal nit ñi ak rey nit ñi loolu doonut lu war suñu borom subhanahu wa ci coobareem la koy defee kon kenn wër wax ne suñu borom dafa war Euh, taw wala mu war a naaj wala dafa war a euh, ray kii wala dafa war a dundal ke loolu lu war ci suñu borom subhanahu wa taala waaye luy lu lu lu muy def rek la ci coobare mu neex ko moo tax mu ne bal fi'lu kulli mumkinin def lépp loo xam ne lu jàpp jàppandi la wattarkaa ak bàyyi ko fii xaqihi ci àqam moom suñu borom subhanahu wa taala mu jawwasum lu ñu dagganal la la shakka ni na loolu amul benn sikki sàkka kon gis nga li la sëriñ bi radiyallahu anhu foofu nee na la lépp loo xam ne dafa jàppandi ngir ñu def ko wala ñu bàyyi ko euh, nee na loolu na nga jàpp ne lu dagan na rek ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala bu ko neexee def bu ko neexee bàyyi def lépp lu jàppandi ci jëmmi suñu borom subhanahu wa mu def ko ak mu bàyyi ko nee na loolu lu dagan rek la ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala lu dagan rek la ci àqam te loolu amul benn sikki sàkka comme lu dagan la ci moom nag lu dagan moom day neex aji def ji mu def Euh, mu ñàkk koo neex mu bañ koo def kon lépp loo xam ne lu mën a nekk la rek dundal nit ki wala ray ko loolu euh, lu daggan la ci jëmmi suñu borom mu def ko bu ko neexee def ko bu ko neexee bàyyi ko guddal fanu nit ki ak gàttal aw fanam loolu lu dagan la ci jëmmi suñu borom subhaanahu wa bu ko neexee mu def ko bu ko neexee mu mu bàyyi ko sedd ak tàng loolu lu dagan la ci jëmmi suñu borom subhaanahu wa la da koy neex mu def ko mu ñàkk koo neex mu mu bañ ko def kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne euh, lu dagan na rek ci su jëmmi suñu borom subhanahu wa taala bu ko neexee def bu ko neexee bàyyi ay kenn warut ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala mu def ko tey kenn waru koo waral ci jëmmam ji moom suñu borom subhanahu wa taala waaye nag amal lazi sëriñ bi ne daal li nga xam ne daal la day tegtale ala wujudillaahi ci amuk yàlla gi sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ñuy bëgg indil ay ay ay ay tegtal yoo xam ne euh, daan ciy tegtaloo ci amuk suñu borom subhanahu wa taala euh, ci euh, amuk yàlla gi ak ki màggam gi moom suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne amal les yi ndaal la nga xam ni dal la tegtale na ala wujudillahi ci amuk yàlla yàlla gi xaaxiril wara moom mi nga xam ne mooy aji not mbindeef almaabudi te moom mooy ki nga xam ne moom rek la ñuy jaamu mooy jaamuloo mbindeef yi te moom rek lañ war a jublu di ko jaamu fa xalquhu mooy mbindeefam yi maanaam mbindeefam yi nga xam ne moom la sàkk moom suñu borom subhanahu wa taala euh, ak càkkutéef yi nga xam ne moom la sàkk luy wone la amuk suñu borom subhanahu wa taala lu mel ni bind gi mu bind asamaan ak suuf lu mel ni bind gi mu bind nit ak ginne lu mel ni euh, bind gimu bind lépp loo xam ne dafa nekk ci kaw suuf loolu lépp bu ñu ko xoolee lañ ciy tegtalawoo man ko caa jànge mooy amuk suñu borom bi subhanahu wa taala li li mel li muy li muy dundal nit di rey nit dundal ak rey loolu suñu borom bi subhanahu wa taala dong moo ko man kon yu mel noonu ay mbir la yoo xam ne ay tegtal yoo xam ne dañ ciy tegtaloo ci amuk suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi ne kon li bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy tegtaloo ci amuk suñu borom bi subhanahu wa taala mooy xalquhu mooy mbindeefam is kullu sunaay ndax jëpp jëf jëy Euh, sanaa jë jëfees na ko dilaalatun tegtal la alal la si ca ka nga xam ne sanaa jëf na ko sëriñ bi radiyallahu anhu ni na jëpp jëf joo xam ne jëf nañ ko rek maanaam ab tegtal la ci ka ko jëf jëpp jëf joo gis ñu jëf ko ab tegtal la ci ka ko jëf kon oh, li nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala jëf muy bind àdduna euh, bind asamaan ak suuf bind nit ak ginne euh, bind li nga xam ne mooy weer weeg biddiw yeeg li nga xam ne moo nekk ci jamono ji yëpp bind xayawaanaat yi muy eh, rabi àll yi bind eh, garab yi defal ñu ngelaw yi lu ñuy mën a noyyee ngir mën a dund yooyu yëpp lan lay tegtale mooy amuk suñu borom bi subhanahu wa taala ak kàttanam gi amuk suñu borom bi subhanahu wa taala lay tegtale ak kàttanam gi moom suñu borom bi subhanahu wa taala kon loolu tax sëriñ bi ne lépp loo xam ne jëf na jëfees na ko rek day tegtale ca ka ko jëf kon lii nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala jëf lan lay tegtale mooy amuk suñu borom bi subhanahu wa taala lay tegtale waaye itam kattan ak suñu borom bi subhanahu wa taala moom lay tegtale moo tax mu ne li annama baaratun ndax euh, euh, li nga xam ne moo di aw baara mooy aw aw neefare alal baxiiri day tegtale ci gileem maanaam su fekkoon ne gileem dafa jaar fenn ba dem boo fa rombee gis fa neefareew gileem da ngay xam ne fii gileem moo fa romb ndax aw aw neefareew gileem moom gileem rek moo koy def kon boo fa rombee la muy tegtale mooy fii gileem a fa jaar ba dem moo tax mu ne di laalatun loolu ak tegtal la ci romb gileem wa xadamun aw ndëggu wu jaar ba jàll alal masiri day tegtale aji dox maanaam su fekkoon ne nit dafa joggi ci suuf si ba jàll nga jaar fa boo xoolee gis aw ndëggu ci suuf danga xam ne fii nit moo fa jaar kon loolu mooy li mu wax ne euh, jëpp-jëf joo xam ne jëfees na ko rek day tegtale ca ka ko jëf loolu la la ñu bëgg a leeral foofu kon aw neefareew giléem day tegtale giléem borom romb ba jàll waaye itam li nga xam ne moo di euh, aw ndëggu wu tegu ba teeg ji jàll day tegtale ne fii nit moo fi moo fi jaar euh, kon li nga xam ne ci la ñuy mën a tegtaloo ci am suñu borom boobu moo tax mu ne kaza sama un xat ah xawat afwaaja ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bind moom la lay euh, leeral ngir nga man cee euh, sukkandiku tegtalu ci ba xam ne amuk suñu borom subhanahu wa taala lu dëggu la moo tax mu ne kaza ni ki noonu sama asamaan xat xawat boobu làq na ab raajan ay burj min fawqi ardin euh, ci kaw suuf soo xam ne maanaam tiim suuf soo xam ne xat xawat Euh, làpp na af jaajam ay mbedd nee na suñu borom bi subhanahu wa moo bind asamaan joo xam ne da koo bind mu doon ay ay tabaxaat mu doon ay déelante waaye tiim suuf soo xam ne suuf su yaatu la waaye am ay mbedd yu yaatoo yaatoo yaatu ndax boo gisee suñu borom bi subhanahu wa taala mu bind asamaan ak suuf nga xam ne nii euh, ki ko def euh, day tegtale ci ki nga xam ne moo ko jëf waaye day tegtale ci amu ki ko jëf ak kàttanu ki ko jëf wa abxurun ak ay géej xadeex tawat yooyu làq naa am waajan ay ay ay ay duus nee na bokk na ci liy tegtale amuk suñu borom bi subhanahu wa ba pare géej ñi nga xam ne suñu borom bi subhanahu bind na ko waaye bind ko def ci biir ay duus ay vague yoo xam ne daanaka euh, benn boo ci xam ne dal na ci kaw doomu aadama rek mën na ko indi jafe-jafe kon loolu lépp li muy tegtale mooy kattanu suñu borom bi subhanahu wa taala waaye amam wama sama in ak ndoxum asamaan soo xam ne mun zalun day wàcc sa jaajan di aji yol ne na bokk na ci liy tegtale amuk suñu borom subhanahu wa ndox mi nga xam ne day wàcce ci kaw asamaan si di yol ndox mi nga xam ne day wàcce ci kaw asamaan si di yol am sa jaaja ndox moo xam ne day wàcc ci kaw asamaan di yol mu di ab taw nga xam ne taw moom ku suñu borom subhanahu wa taala mënu ko taw ku suñu borom subhanahu wa taala mënu ko kon loolu bokk na ci li nga xam ne itam day tegtale amuk suñu borom bi subhaanahu wa la moo tax mu ne la dalilatun loolu lépp ay tegtal la lil uqala ñeel way xel yi zawil basire way gis ñi maanaam borom gisi xol yi xataan ci lu dog alal xaaliqi ci aji bind mbindeef yi zillut fi kay borom ñeewante ga alxabiiri kay aji bañ kumpa kay aji dañ kumpa moom suñu borom subhaanahu wa taala suñu borom kese moom mooy ki nga xam ne mooy dañ kumpa moo dañ kumpa ne na kon yooyu yëpp mu la wax de ay tegtal la ci ñi nga xam ne ñoo am xel ba pare di jëfandikoo seen xel waaye am li nga xam ne mooy gis-gisu xool euh, ci ne euh, aji bind bindee fi de mooy suñu borom subhaana wa taala te it moom mooy ki nga xam ne euh, lépp lu am moo ko amal waaye ci kàttanam akuk amam ci la lépp ame akuk nammeelam ak li nga xam ne moo di xam-xamam akuk coobareem kon Euh, yooyu yëpp ay tegtal la yoo xam ne day wone euh, rek amuk suñu borom bi subhaanahu wa ak li nga xam ne moo di kàttanam gi kon euh, foofu la ñuy taxawlu di tuub bu baax tey jéggulu yu waa ne in uridu illa lislah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh